rawatina eh, maître. ndaxte par euh, le hasard des choses jëm rek maa ngi doon liggéey ci dossier boo xam ni. Euh, ay adversaire am la. Euh, yàlla may nañ leen ndam. ndaxte cour d'appel bu Thiès nangu na list bi nga xam ni moom le préfet donc bu sous préfet bu ngoy bañoon a jël. donc foofu may nañ mandataire Modou Diouf. déposer ay listam. moom mooy résultat yoo xamante ne euh, euh, gain de cause ci ñi nga xamante ne ñooy coalition de l'opposition euh, bu ñu ko waxee di coalition Yewwi Askan Wi ak coalition walu Sénégal ak yenn coalition yoo xam ne xëy na ñu ngi koy xaarandi ñu am fi également Malick Diop coordonnateur de la plateforme des acteurs non étatiques am nañu mbégte daal ci plateau bi ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay Abdou Fatou Abdou di ziar di ziar mhm. ñoo bokk. ñoo bokk secteur bi ñooy travailler beaucoup sur les questions de la société civile. Mhm. depuis longtemps voilà et puis ziar aussi sama collègue aussi. Diouf. Mhm. ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax monsieur Sémou Diouf nekk euh, Seyba Diouf. Samba to euh, Samba Diouf nekk juriste mais également bokk ci coalition gëm sa bopp nekk maire ca fa nga xam ne mooy Padois. Euh, du noonu la candidat à la commune de Yoff. à la commune de Yoff maa maa ngi ciy jéggalu. à la commune de Yoff maa ngi koy maa ngi koy jaawaleeg waaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. merci soxna si ñu lay ziar bu baax. Euh, di yëkkati suñuy kàddu di nuyu Sénégal yëpp. di nuyu mhm. àdduna tàmbali nuyoo bi si suñuy kilifa euh, diine euh, le xalif général des Mourides. di nuyu également le xalif général des Layènes na xam ne man commune de yoof la bokk di nuyu également comme ni ko maître waxee léegi rek puisque man damay candidater au niveau de la commune de Yoff mhm. bépp ressortissant bokk commune de yoof di nuyu waa plateau bi Euh, suñu kilifa gi sëñ Diop di nuyu maître Sène ak santam bu ñaaw bi mu bu am <laughs> di nuyu également sëñ Sila euh, di ñaan yàlla daal waxtaan bi nekk waxtaan bu am njëriñ ñu jëlee fii loo xam ne dina mën a jëriñ askan bi ba yi yëpp ñuy wax muy ay rëq-rëq mhm. euh, na xam ne comme ni ñu koy waxee ci tubaab san n'honore pas le Sénégal Euh, ñu mën ci daal jële lu ñuy jëriñ ñu mën a def ay étapes yoo xam ne day évoluer le Sénégal ci beneen beneen niveau. Mhm. c'est important ni ñu ko waxee processus électoral entre imperfection et impréparation loolu la ñu fas yéene waxtaanee euh, monsieur Sylla Ndiaga euh, fi ñu toll tey ci processus électoral bu Sénégal ñu gis ay rëq-rëq yu bari ci li nga xamante ne moom mooy ñi féete ci wàllu politique mais également administration territoriale bi nga xam ne gis nañu ne cour d'appel ñu ci bari neenal na leen ba jox dëgg ñi nga xam ne ne ñoom ñoo fare ci kujje politique gi yow tey nan nga ko jàngatee. li xaw man bettu ma. Hmm. ndaxte defe naa semaine bi ñu génn. débat bi hmm. ñu def. maa ngi di hmm. fàttali encore une énième fois euh, conditions yi ñuy demee ci élection yi. Euh, maanaan di artu naan su fekkee ni autorité administrative yi defuñu preuve de souplesse. liste yu bëri dañu koy rejeté. baamtu naa ko plusieurs fois Euh, et finalement loolu moo am du ma ne nag defuñu preuve de souplesse parce que ñu ci bëri ñu ci ëpp vraiment def nañ preuve de souplesse euh, ñenn ñi tax def preuve de souplesse euh, moo tax xëy na li nga xam ni moom la ku dàppal yi dogal dogal ko ci jàngat bi ma ci mën a jàngat li xew ñetti yëf la benn bi mooy le fait que réforme yi mu yéex a génn parce que waxtaan bi dafa dafa dañ ko def ci ñaari at ak nangam. Mhm. souvent damay wax ni c'est la première fois vraiment euh, ñuy def concertation ci ay commission cellulaire muy jéggi tax ñetti weer alors que euh, ci temps bu gàtt Sénégal def na fi ay réformes yu majeures vraiment euh, ñëpp xam nañ ni code électoral u 92 def na ñaar fukki at. Mhm. ba ginnaaw effectivement concertation yi nga xam ne defoon nañ ko 2001 ci weer ak genn wàll. Euh, jur vraiment ñu laal ci li li article yi ëmb code bi lu man ñetti téeméeri article ñu laal ci deux cent articles si la ñu wax ne nag kon jaaru na euh, vu l'ampleur des réformes ñu changé de code mhm. euh, ci concertation boobu tax d'ailleurs si la la première fois mu amoon accord sur le bulletin unique ba au dernier moment peut-être ñi nga xam ni ñoo doon majorité bi dellu ginnaaw mhm. loolu moo tax amul pour dire simplement que vraiment ñëw nañ ci am ay réformes yu majeures yoo xam ni am na ci jamono boobu comme aussi d' ailleurs réforme yi ko jiitu ba ci même bi indi côté électoral consensuel mais bii dialogue bi dafa traîner euh, mu am xëy na peut-être préalable yu ñu exigé woon lu jëm ci audit fichier électoral bi euh, càmbat fichier bi mais aussi évaluer euh, mm-hmm. maanaam processus bi li ko dalee 2016 bi ñuy def refonte bi ba élection présidentielle loolu lépp nag jur justement yeextaay si diggante bi aussi Covid bi ñëw Euh, dañu dem ba benn moment ay lu mat six juróom benn weer def ci élection yi si la nag maintenant euh, ñu ni nag maintenant il est tant que ñu taxaw ñu tëju une semaine euh, pour maanaam finaliser code électoral bi adopté ko Euh, doog a mën a dëgmal effectivement les phases préparatoires comme si dañ ko def dans la précipitation effectivement dañ ko def non non parce que dialogue bi moo traîné ba benn moment nag ñu xam ni wër gi dem na këng buñ luñ ci tegate rek dootuñu mën a respecté euh, donc échéance bi alors que yi euh, ñaari yoon mandat ñëpp xam nañ ni war nañ ko renouveler depuis ñaari at ak genn wàll ci ginnaaw mhm. ñu gis ni vraiment bi ñuy décider loolu li desoon ci ñuy dem ci élection yi bëriwul c'est la première fois aussi maanaam étape bu am solo muy révision maanaam mbindu mi Euh, nga xam ne toog nañ ñaari at ak genn wàll amul. Mhm. pour la première fois aussi euh, ndaxte code bi dafa wax ni révision ordinaire annuelle dafa war di am saa su ne mais xëy na dialogue bi ak concertation bi ak euh, changement yi ñu doon espérer moo tax ñu tegeen di ko donte mën méngoowul nag ak loi. Mhm. ba pare nga def loolu. ci diggante bi mu am ay primo votant yoo xam ne dañuy toll ci at bu ne ñetti téeméer ak juróom benn fukk fukki junni mu mel ni kon daanaka lu jige million waroon nañu leen xaar ci ay ndaw sans compter war a def modification mais terewul dañu gàttal maanaam période bi ñuy bindoo comme gàttal aussi période intercontentieuse bi mhm. ndaxte buñ ci tegoon dara rek du ñu mën a euh, dem ci élection la preuve euh, euh, maanaam bi ñuy def publication liste yi début octobre contentieux bi démarré premier octobre ñu war a déposé en fait liste ci même mois bi à partir du 29 justement donc octobre kon wane na ni effectivement temps boobu gàtt moo tax non seulement acte préparatoire yi nga xam ne tax waroon nañu ko teel a jël bu yeex mm-hmm. keroog maa ngi wax ni euh, décret bi nga xam ne moom moo war a def répartition siège yi wax gox bu mm-hmm. nekk ak mm-hmm. gox goxaan yi ñaata siège lañ fay fal euh, la veille la ñu signé arrêté bi nga xam ni mooy fixé modèle euh, maanaam déclaration candidature yi mooy aussi fixé arrêté bi nga xam ne mooy wax indépendant yi maanaam gox bu ci nekk ñaata signature lañ fay recueillir sur la base de li bi wax Euh, su ngeen xoolee euh, am na benn guide boo xam ne dañ ko joxe. guide boobu daanaka def nañ ci ay modèle arrêté mais modèle arrêté yu fekk na justement euh, modèle de de de de déclaration de candidature yoo xam ni def donte def nañ ko ci guide mais an arrêté bi signé wuñ ko woon jamono boobu. Mm-hmm. et d'ailleurs loolu tax am na lu mu jur. ndaxte am na lu nekk ci ci document boobu te arrêté bi mu ñëwee am na leneen lu mu lu mu soppi par exemple commune de vote bi nekkul woon ci loolu. donc pour mm-hmm. dire simplement que. Mm-hmm. autorité administrative yi aussi donte formé nañ leen. Euh, mais xëy na formation bi ils n'ont même pas eu le temps de s'approprier effectivement des changements yi nga xam ne am na et je pense que tey loolu moo jur euh, vraiment ci aussi bien ci ñoom que ci acteurs politiques yi et benn point rek laa ci euh, laa ci laa ci wax mhm. mën a mën a foofu mhm. mooy tey ñoom ñëpp dañoo réer a mbir lan mooy sensu le fait que code bi wax léegi distinguer en fait Euh, ou lan mooy recevabilité matérielle ak recevabilité juridique. Mm -hmm. alors avant loolu code bi leeral lu ko woon li tax code bi leeral ko mooy bi ñu ñëwee en fait donc 2014 euh, comme aussi ele yeneen élection yi euh, par acteurs yi en général dañuy bàyyi ba ñoom ñëpp bu minuit di waaj jot ñu dugg si continuer seen investiture ñu ni nag loolu euh, mënul en fait donc méngoo ak li nga xam ne effectivement bëgg nañ ko ndaxte bu fekkee yow da nga dugg si mhm. ñu ni dañuy def recevabilité juridique mhm. parce que bu njëkk ba effectivement booy ñëw di déposer contrôle de fond bi lañuy def ci moment bi ngay déposé donc pour mën a def loolu il faut nga jël lu mu tuuti tuuti deux deux heures de temps. Mhm. bu fekkee maintenant imaginer dans une euh, dans une sous-préfecture mu war a am euh, trente listes kon trente listes yooyu ku nekk def deux heures de euh, daanaka kon dinañ def ñaata fan dinañ def ñetti fan alors léegi nag loolu moo tax ñu ni dañuy dissocier à partir d'un atelier d'ailleurs mhm. boo xam ne man yàlla def na ma participer woon si mhm. ñu ni dañuy dissocier maanaam recevabilité juridique ak recevabilité matérielle si la ni daal ni daal waa bu ñëwee di déposer si moom day indi euh, euh, document yi euh, nga xool ñaata pièces d'ailleurs dañ ko prévoir ay cases mu coché. Mhm. dañuy wax ni après un contrôle sommaire et contradictoire yow yow ak président commission bi ak effectivement sous sous la supervision de la Sénat. su su su ko defee maanaam yow boo ñëwee tax su fekkee ni ñaari rames de yi nga indi en tant que mandataire teg ko moom day bind rek li nga xam ni en fait donc indi nga ko mu coché li foo gisul mu mu mu mu. mu bàyyi ko noonu léegi nag ci ñaari fan yi. Mhm. léegi nag moom mu càmbar. et euh, malheureusement nag euh, maanaam ponk boobu nit ñi xamuñu ko et d'ailleurs le fait que aujourd'hui euh, changement boobu am mm. moo tax am na benn disposition ci code électoral bi daf daf ne woon lorsque l'autorité maanaam préfet ak sous-préfet bañ a jël liste mm-hmm. daf ko war a motiver ba pare wax lan moo tax ba pare bindal la ko mm-hmm. alors à partir de ce moment loolu benn passé daaneel nañ ci effectivement préfet yu bëri la cour preuve cour d'appel ba ci cour suprême. Mhm. alors léegi nag maintenant bi ñu dissocier recevabilité matérielle ak recevabilité juridique mooy mooy lan mooy kon waa ji amul nangu cest à ak waa ji lu mu mënti demee maanaam bu demee tax ba ñëw après l'heure parce que encore une fois boo ñëwee après l'heure tax dañu war a jël sa sa sa sa sa say dossier pourquoi parce que léegi dañoo yokk ci euh, maanaam motif d'irrecevabilité yi maanaam ku déposé après l'heure kon mooy wane ne yow ba jour boo ñëwee deux heures du matin maanaam autorité bi dafa war a jël. et pourtant loolu am na ñoo xam ne xamuñu parce que encore une fois pour tënk. Mm-hmm. Mm-hmm. maanaam commission bi commission de réception. des candidatures la donc boo ñëwee ak loo mën a indi en tant que mandataire. Mm-hmm. daf ko war a jël donc ñoom amuñu benn sañ-sañ pour rejeter euh, ci saa si comme ni nga ko waxee. malheureusement ñu bari ci état major yi amaana xamuñu.